Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna saa su ne ngeen gisee ñu wàcc rek am na lu tax ñu wàcc ci lan lañ wàcc mooy tey ci li nga xam ne moom mooy kaddu askan bi kàddu askan bi nag kaddu la boo xam ne askan bi ñoom ñoo ko moomal seen bopp suñ ne askan bi nag saa su ne léeg nga jékki-jékki gis koo xamante ni xolam dina am bànneex léeg nga gis koo xam ne xolam dina am naqar tey ñu ngi géej fi ñu nekk tey mooy rond-point Malibu tey dañoo wàcc wàccoon nañu géej nag ci beneen domaine mais tey dañoo wàccaat ci li nga xamante ni tey moo fi xew muy actualité moo ci kaddu askan bi léegi nag fi may njëkk a jëm mooy Diop maa lay siyaar yegsil yegsil yegsil yegsil defe lay siyaar ngi delloo ngeen jàmm baax a baax ngi sant bi la ñu nekk ci doxinu ñu toll ni tey ji ban yëg mi mi nga xamante ni instant yi nit ñaa ngi koy dund si jafe-jafe non métti rek dëkk bi a métti grand bilaay walaay taalaay ñun ñi sax a a woon moom seen wax moom wéy na quoi mais ñun ndaw ñi mhm. dañu war a jàppale ci lu bëri mhm. dañuy liggéey mhm. ba am suñuy métier mais jàppale. Mhm. moom maa ngi si réew mi. bilaay walaay. mais tey ji yow tey nga xalaat ne tey ji a a ilaa da ngeen am ku loo xamante ñoom ñoo leen jàppale wu. ñun am nañ métier ay ñun man mi wax ak yow nii teer la jàng naa ko ba man ko trop mais instant bi wàllu ay machine affaire yooyu noonu moom ay tardeel carrément. mais tey ji yow boo jàngee sa métier ba mu la sa métier tey ji nga jaar fi nga war a jaar tey ji yoon tey da lay may nga war a am benn affaire yoo xam da nga ko dem déposé ji boo ko déposé état bi war na laa mën a jàppale tey ji boo xoolee Sénégal tey ji ñu bari am nañ seen métier mais état bi jàppale wuñu leen loolu ci fi état bi teg la a maanaam état dafa bàyyiwul loolu xel wala lan la non xam nga instant bi ñu toll nii réew mi ñu toll nii jamono bi ñu toll nii maanaam loxo bu bu bu loxo bu dugg waaw moo fi jàllale léegi maanaam boo xamul maanaam wala nga ñàkk xam ñoom si nii sax maanaam dañ la war a mën a jàppale soo fa demul duñ la jàppale maanaam man instant bi su am na ñoom suñu xam ne su mais yow mi am na ñoom xam nga leen ngi ci biir mi ñu ngi ci ci ginnaaw njiitu réew mi ñooñu noonu instant bi yow boo yow boo boo leen xamee yow amee sa métier bu jàppale mais man ñoom suñu xamuñu ma su àggee su ma leen laaj sax booy sawar rek lañ may ma ngi yow yaa ngi def ay yooyu. de moom dama koy def ay dama koy def ay léegi. mais sans yow embossement bi liggéey est dina la arranger en 100 pour cent non mais ANACIM ñu mais tamit faaw dañ ci jàpp waaw dañ ci jàpp rek mais ANACIM ñu mais dañ ci jàpp. tey jii yow la nga lancé état bi. état bi wax naa mu jàppale ndaw ñëpp rek waaw képp si daal yaa ngi liggéey nañ jàppale mais ku liggéeyul moom ko jàppale. kenn mënu ko jàppale carrément ni jàppale. ok merci. fàttali ñu tur bi Ibrahima la. Ibrahima lan Guèye. Ibrahima mu ngi noonu yéen a ko dégg wax na li nga xamante ni mooy li nekk ci xolam te dina am na métier a na jàng na métier ba mokkal ko tey ji da koo bàyyi dem di liggéey ji embossement maanaam embossement ba muy liggéey mooy day dem liggéey keneen kooku tey di ko fay journée wala bu teg ko un mois tey ji yow tey ji di ko fay comme maanaam tey ji dëkk bi ñett na métti goo xam ne tey ji askan bi ñu ngi jooytu mais loolu dafa am ci leneen loo xamante ni fa lañ jëm si sama réalisateur nga dugalal ma loolu ñu wàccaat ci sur le terrain bi ba léegi fi ñu nekkoon fa la nekkaat ba léegi ñu ngi ci kàddu askan bi kilifa gi maa ngi lay siyaar dool siyaar bu wér bàyyaa ngeem jàmm baax tey ji ci kàddu askan bi li leen neex ak li leen naqari tey jii yéen lan moo leen métti tey jii ci li nga xamante ne moo fi nekk mooy si njuuti réew non ñun kay daanaka ñun jeunes yi quoi ñun bu ñuy kaas dañuy kaasal jeunes yi que dañ naan jeune moom moo yore moom moo yore ërëgu réew mi parce que tey ñun ñuy jeunes yi ñun ñoo mën a defal Sénégal loo xam ne tey jii ne xam nga dina jëm ca kanam quoi te ñun tey jii nii lépp lu ñuy wax dañ koy waxal ngir jeunes yi te tey ñi jeunes yi barki Seydina Mohamed ñu ngi dund lu métti barki Seydina Mohamed boo gisee géej gi nii nii nii nii barki Seydina Mohamed ku nekk di fi jaar xamal ni barki Seydina Mohamed dëkk bee métti dëkk bi dafa métti ba mooy loolu wallahi azim fii bu ñu fi ñëwee dañu fiy ñëw toog pour soulager yaa ma gën a xam pour jéem a fàtte yenn esprit yi xam nga parce que tey jii nii même boo nekkul ci lii di nga nekk ci leneen ci leneen li ngay nekk ne xama rek mën naa ñaaw te tey jii nii bu ñaawee rek xama dina indi loraange dina indi ay jafe-jafe jafe-jafe àdduna kon tey jii nii bu ñu ñëwee géej ñi di soulager pour bëgg a xam rek mhm. am esprit tranquille yaa ma gën a xam mhm. nekk nekk ci nekk ci yenn activités yi quoi parce que tey jii nii même boo nekkul ci lii di nga mën a nekk ci loo xamante tey jii nii xam nga di nga ci mën a doole xam nga après di nga mën a toog concerné gérer sa xam nga mooy mooy loolu quoi parce que de toute façon mhm. tey jii nii moom mooy li may wax rek ñun jeune lu ñu am dafa réeg te Sénégal fii nii dañoo am ay richesses yoo xamante ne tey jii nii xam nga dañ ko war a tey jii nii jàppale si jeunes yi yi mën cee gën a mën gën mën cee yëg seen bopp parce que tey jii nii ku nekk fii nii war naa mën a am liggéey boo xam tey jii nii dina ci gis boppam barki Seydina Maye maa ngi ci tubaat nag bu wér parce que de toute façon gars yi bu ñuy wax rek dañ naan le président de la république monsieur Macky parce que loolu lañ mën a wax parce que dañ naan nguur gi moo deful lii wala nguur gee deful lee mais tey jii nii nguur gi d'une part il est responsable d'une autre part il n'est que tey ku nekk boo yeewoo tey jii nii yàlla ku nekk ku nekk doomu aadama bu nekk jox na la sa wërsëg te ala kulli alin fu mu mënti nekk wallaahi azim di nga ko jëli te tey jii ni nguur gi ñi ngi lancé appel nguur gi di ko wax mu jàppale jeunes yi jeunes yi jeunes yi dañoo sonn barki Seydina Mouhamed. tey jii yenn jeunes yi nga xam ne tey jii dañuy jël mbëkk bi. Mm-hmm. dugg ci géej gi. xuus ndox mhm. yow yaa ngi xuus si loo xam ne xamuloo ko tey yow nga dugg ci géej gi ne da ngay dem dëkk jàmbur tey yow boo demee dëkk jàmbur yow la nga fay fekk ji xamuloo ko mhm. tey ji yow nga jàpp ni tey ji lu ci bari loolu noonu di am mhm. maanaam ñàkk am maanaam métier bi la wala ñàkk a fonk métier bi wala ilaa métier bi nekk nekk fii te gëstu ji woo ko bi jàppale wala yow loolu nga foog ñëw ci nit ñi la li nga xamante ne mooy ci état bi la non man dama philosophe quoi man man ci sama gis-gisi bopp man dama jàpp ni maanaam ci ñun la ci ñun ci ñu ni nen la mais d'une autre part tamit mën naa wax ni nguur gi tamit les les les deux parce que tey jii ni bu fekkoon nguur gi tey jii xaw naa wàññi dund gi dund gi seer na location bi seer na ñun daanaka lu ñu am jox ko suñu yaay ji te ñun lépp lu ñu mënti am tekki moo ko gënal lépp lu ñu mënti am tey jii nii tekki teral suñuy waajur loolu moom moo ñu ko gënal parce que tey jii nii buñ jëlee yoon bi wallahi azim man mii nii di wax ak yow bu ma seyoon bu ma jaar si raw bi fu góor ñi di jaar fa laay jaar mais billaahi wallaahi wa taala dëkk bi métti na métti boo xamante ne ku ñu gis mu ñu yóbbaale barki Seydina Mohamed. xam nga rek dafa dafa métti c'est vrai parce que parce que ku xool parce que parce que ku ni ngay waxee nii tey yow ñàkkoo métier. xam nga ni mais am nga lu la métti loo xamante ne tey yow amoo fenn fa laa yore. barki Seydina Mohamed trois métiers laa yore te je suis professionnel dans ces tous ces grands métiers. billaahi wallaahi wa taala téer laa téer laa njëkk a def man élève laa woon. seconde laa bàyyee. Mhm. feebar moo tax ma bàyyi seconde laa bàyyee. Mhm. jugee seconde dem liggéey téer def téer pendant quatre ans quatre ans laa def téer mhm. mën sama métier di ñaw wallahi azim man sama métier di ñaw bàyyi ko fa ñu ko ndax lan lu ñuy fay ak ak ak yenn tarif yoo xamante ne xama rek mooy loolu billaahi wala ñu bàyyi ko fi ne ko ñukk dem si peintre bi peintre bi ñu dem affaire yi xaw a indi ay giitangaas ñu dem defi cordonnier cordonnier yaa ngi nii barki Seydina Mohamed paire dàll bu ñu la waxee daanaka ñun maanaam matériel bu ñu koy jëndee rek daanaka bu ñu siy am pour pour centage wallahi azim day doon loo xam ne dafay yéeme te tey jii nii loolu noonu boo koy dajale nii maanaam boo yoree place tey jii nii ngay ñëw di dajale chaque jours même bu fekkee di nga am ay pourcentage nii maanaam ci sa ci sa job ngay am tey centage maanaam deux mille cinq cent tey sa place bi nga bi nga nekk nga koy fay loca location tey jii nii boo jëlee jox ko ko tey jii nii xam nga rek lu lay dese tey jii nii nga bëgg a ñëw yaa jaa ngi fi doom yaa ngi fi yaa ma gën a xam barki Seydina Mohamed dafa métti. billaahi wala fàttali ñu tur bi tur bi Baara nga dëkkee maa ngi dëkkee Pikine. yaa ngi na li mag. macha allah yéen ko dégg parce que bu ngeen gisee ni mu waxee xam ngeen ne kii Feugeleu bi la parce que am na lu nekk ci digg boppam. parce que tey jomb na tey jii di romb fee ñu naan ko diw moo romb moo def nangam wala nangam tey ji am na loo xam ne tey mu ngi ci moom mooy ne tey ji mu ngi ñetti métier ci ko waxee tey ji dafa war a gëstu jeunes nga xamante tey ñoom am nañ seen métier ba pare te tey ji dañuy toog fi ñu war a toog tey ji da ngay yor sa table tey ji a liggéey la a doole moo la a ñu nga dëkkal ba pare comme maanaam moom dañ koy jaajëfal fal dañ lay yi ñu ngi tubaat bu wér di santaat ñëpp barki Seydina Mohamed di xam ni tey jii nii lépp lu ñu fi wax loo xamante ne xaw na dëng rek ñu xam ne tey jii nii nit a nit a matul rek mais tey lépp loo xamante ne wax nañ ko fi mu xaw a tegu tamit xam nga rek dañ koy dañ koy sant yàlla quoi te xam ne xam nga rek mooy loolu c'est la première fois tamit ñu nekk en plein écran nii nii xam nga rek di wax barki seen na ma xam ñu man dama que ñun parce que ñun kàddu askan bi rek lañ di nekkal tey jii ñun bu ñu xoolee tey jii suñu bopp tey exemple tey jii yéen daanaka ay référence ngeen ay référence ngeen tey jii ne da ngeen ni fii taxawal askan bi taxal fi jeunes taxal fi république bi mhm. di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla lépp loolu sumb yàlla jëmle leen kanam ci barki daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu ngi baax ba léegi mu ngi gën ci kàddu askan bi kilifa gi maa lay siyaar waaw delloo ziar bu baax bàyyi yam jàmm baax baax sant borom jàmm ji la moo la métti sérieux waaw li ñu métti moom wax dëgg yàlla bi ñu koy jàpp naa bi ñu koy wax dañu fi jógee parce que son jeunes yi nañ parce que tout le temps ngi nekk si maam si jamono ñi nga xamante ne tey xamuñu kañ lay avancé kañ lay lay neex parce que tey boo xoolee ba ci biir ñun jeunes yi ku ci mel ni maa morom man benn maa sama parce que man téer laa jóge foofu def cak-cak te lépp luñ taxaw tey dañuy sonn parce que téer bi ma nekkoon gis tam naa ba si biir gisuma gisuma si sama arrangement ma si marchand ambulant bi marché boo ñu lay fayloo ay juuteeg lu kenn xamul jàpp se bagage yóbbu ñu jógee foofu nekk si cak-cak ma cak-cak bi génn sa mbottu cinq cent mille wala quatre cent cinquante mille nga ñëw tak gendarmerie di la jàpp di la wala benn douze mille wala benn trois mille cinq cent xam nga lu waral loolu mais maanaam mënuñoo comprendre dañuy jàpp te tey jii mënuñoo xam daal lu tax ñuy xaalis boobu noonu yéen ngeen ñuy ko di ko jox gendarmerie police yi loolu fan la jëm ñoom ñoo koy lekk wala nu fa demee man ñun mënuñoo tey li ñu ci wax waxuñu dëgg parce que imagine naa njëkkoon boobu essan ko perte parce maanaam jël nañ ko ko commissariat ban commissariat lañ ko yóbbu xawma ko parce que tey jii après waat xaalis di taawa taawa di kalangaatu ba amaat beneen njëgu machine jëndaat xam nga nekkaat ci loolu essan ñu ngi nii chaque jour dañuy tëbaka daanu tey jii nii wax dëgg yàlla bu ñu jugul jàppale ñun jeunes yi rek dinañ sonn parce que jàpp naa ne stade yi ñuy defar ak télé defar yooyu yëpp ñu defoon ko ay usine tey jàppale jeunes yi solo parce que si ba yaa ngi wax wax ju am importance yaa ngi wax wax ju am importance nga ne stade yi ñuy jël di ko tabax ak ay tali tabaxoon ko ay entreprise ay jël ay doom adama ñu liggéey si gënuñu parce que tey boo xoolee ba ci biir stade yi stade yi ñuy tabax naan mbëri dañuy bëre wala stade yi ñuy tabax naan zóor yi ñooñu ñooñu ngay gis ñëpp après violence télé bi ñuy defar kañ lay pare foo tourné mi ngi taa tey jii ñun ay doom baadoole lañ am ñoo xam seen loxo jot sama naa ku si mel ni man parce que looy wax looy wax rek xool sa bopp ay locataire lañ xam nga ak samay morom encore kon tey jii bu ñu ñëwee tak parce que tey ba yow mii taxaw di ma di ma posé question yàlla dogal na ni mun nga yor man yoruma nga jàpp ne yow mi yor tey jii man noonu laa mel fekk yàlla xam na ni loxo nu ngi koy gisee tey mu ëpp mu ay baaraam ay baaraam loxo loxo baa loxo ñu ngi ko gisee nii tey baa yëpp tolloowuñu kon ñëpp yemuñu kon nañuy ja ñuy gëstu doomu aadama yi dañu jaa dañu jàppale daal parce que tey jàpp naa bu ñu taxawee ñu xool ne a ah, moo xam léeg-léeg ku si nekk tey yaay xool tey doomu président wala doo wala doomu ministre koo si gis tey jii nii benn doomam du taxaw di ñaan cent franc mais ñun jeunes yi tey ñooy toog xëy yoruñ luñ lekk yoruñ luñ naan di ñaan suñuy morom cent franc ëllëg ñu toog wax di ñu ko jëwee te neexul ci xol kon nañuy jàppale rek ñu am benn métier wala ñu jàppale ñu ku si nekk boo yoree sa benn cinquante mille jëndee ko sa benn machine wala nga yor sa cinquante mille si ambulant ñu jàppale la loolu noonu tey jii nii nga jëm seen investi mu ko ñu lay jàpp di la sonal di la tardeel dañu kàddu yi waaw di leen jaajëfal bu baax a baax rek danaan leen rek nañ bàyyi xel askan wi rek bàyyi xel jeunes yi daal macha allah kontaan nañ ci yow baax parce que xam-xam bi nga wax kilifa gi maa lay ziar waaw maa lay delloo am jàmm baax a baax am jàmm li la métti ak li ma métti kilifa gi mhm. su ma ko doon wax fi laay fanaan taxawal ni mhm. bëri na bëri ga nga xam ne mhm. su ma koy wax nii fi laay fanaan quoi ndax abi maa ngi nii euh, Pikine laa jógee man chauffeur la muy chauffeur oto maay jàng sama métier ba man ko mokkal ko yor sama permis embauchement sax su ma la waxee dëgg mënatoo ko am. lu waral loolu. ndax dëkk bu metti gaa dañu doon fay fayatuñu nga jóge foofu noonu essence bi may waxee yow nii moto laa yor moto jakarta di cag-cag ci dëkk bi. yaa ngi yor sa permis sa xam-xam ñu war la jël embauchement tey nga ëlbateeku yor moto di cag-cag lu waral loolu. ah dëkk bu metti ndax boo xoolee yow. imaginal toi tey transporteur bi loo doon jël di la fay ay weer trente mille francs yow nga war a yor yor yaay yor papa yor kër di fay location ci trente mille francs nga ne ci trente mille francs lañ lay fay chaque weer. lañ lay fay chaque weer budul budul li nga xam ne yow moom nga am ci chaque semaine bi nga xam ne chaque jour nga yow li nga dajale ndax chaque semaine ngay verser cent cinquante mille francs yaa ngi dégg ngay jox transport bi nga xam ne moom yëkkat oto jox la ko. yow weer trente mille lañ lay fay est-ce que comprendre trente millions yooyu noonu boo xoolee yaa homme de tenue koy séddoo ci kaw tali bi ngay jóge Jurbel war a ñëw Dakar nga jaar xombal gars yi jàpp la nga bëgg leen jox mille francs yaa ngi dégg yoonu Bawol yëpp daanaka ba taawoon da ngay samp bala nga ngaa ne boo xoolee quinze mille francs yi da nga koy da koy samp gendarmerie est-ce comprendre te loolu boo xoolee yow si sa xaalis daanaka lay jógee transporteur bi li nga seq da nga ko koy jox yaa ngi dégg ma jaar foofu noonu loolu métti tar ma bàyyee ko nële jënd sama moto en janvier bu bees tàq maa ko jëndee quatre cent quarante mille Thiès ñu sàcc ko six jours la am. six jours ñu sàcc ñu sàcc ko te loolu dajale naa ko lu mot un an. loolu lañ tuddee tas yaakaar. loolu lañ tuddee tas yaakaar mu métti trop. guddi gi ñu toll yow ci lan nga nekk. man maa ngi war ci teg-teg ba tey ndax man tànt naa tànt ay yoon yoon yoon dem naa fi ba Maroc mu métti trop si man ñu wàññi ma. ci gars yi nga dugg dem wala. ci gaal laa dugg sama xol sax mu ngi commencé tooy tuuti imagine toi jeune bu toll nii am jom am métier yor permem mais li mu wax ni dafa wax wax ju garaaw tante dem ñaari yoon tante dem dem ba Maroc ñu refoulé ko dugg ci ay gaal te tey ji maanaam loolu waroon na mën a ñàkk ci li ma jàpp parce que am na loo ne sax boo ko continuer nii man. te mën naa gisee sama bopp ne neen quoi en tant que man mi nga xamante ni tey ji maa ngi wax ak yow sama bët sax mu ngi taa dernier message bi donte lii métti na quoi mais sëñ Fall. waaw mais di sant yàlla rek et puis di lancer euh, message bi daanaka ñëpp rek ñu mën a jàppale ñu jàppale muy appareil ñu jëlee suñu réew ñoom ñooñu war a jàpp ñun ay jeunes lañ et ñoom nañ xalaat que ñoom seen i doom li ñuy dund ñoom bu ñu ko doon dund et dana tar dana metti war na Serigne Bamba ni may waxee yow billahi wallahi buntu Pikine EDK la ñu fekk dàq ñun ñëpp dàq ñu comme mënu ma expliquer ñu mujj a décourage xam ñu ñu def celaan sama gars yi kaa leen dem ñu dem géej ñu dem tàng sang toog soulagé wu sangu jàpp si yàlla. wër na yàlla journée bi tey mënu ma laa na xoolal amuñu fu ñu da ngay xëy ba Dakar ñu lay dàq gendarmerie billahi wallahi wa taala. yal nañu yàlla jàppale yal ñu yàlla dimbali euh, gendarmerie. gësuwaat leen jeunes yi parce que jàpp naa ne jeunes yi bu ñu amul ñetti yi dinañ ko def leen sàcc baa ñu agressé baa ñu rey nit. kon yaakaar naa ne bu ñu yoree seen boto di ko dawal di bëgg ñaar téeméer yu ñu yóbbu seen ndey ak seen baay ngir bëgg loo xamante moom la ñu suturoo seen i biir kër ngeen bàyyee leen ko loolu. te man li ma ci gën a naqari ba gën ma cee naqari dara weesu yéen xanaa état bi yéen du leen fay yen gendarme yi xanaa état du ñeen fay. parce que li mu wax ni dafa am seede parce que li tax mu am seede mooy ozu mos naa yëg ci benn clando bi ma yëg maanaam dafa ñëw ba station Canada profité quoi teggiwaat jaaree yoonu PA yi ma ne ko sëñ bi lan moo tax nga teggi mu ne ma cent franc cent franc yi ngeen di fay pour dem ñun pese bu ñu jàppee mille franc la fay ko te saa bu ñu fi jaaree ñu lekk suñu mille franc kon nombre oto bi boo xoolee cinq quatre personnes lay def quatre cent franc nga quatre nga a dox ak moom ba ba ba yow lu mat mille franc sax yow doo ko yóbbu kon yàlla nañu yàlla jàppale kilifa gi dernier kàddu yi. waaw en tout cas daal euh, comme d'habitude ni ma la wax ñoom ñoo ñu war a mën a jàppale ndax ñun ay jeunes lañ métti na trop métti na. billaa walaa gis nga tey ni ma waxee nii war na sëñ Ba maa ngi taxaw fii ma gisoon gaal guy dem ma duggaat ndax sama réew mu metti nga am yaay am papa da nga ko war dañoo war a jàppale ñu suñu yaay ndax suñu yaay ñun dañoo sonn si ñun ñoom nañu jàppale nañu jàppale ñun ay jeunes lañ ñun sàcc wuñu dañoo xëy di liggéey di wut lu ñu am nañu dimbale da yàlla tax. fàttali ñu tur waaw man Saliou laa tudd Saliou Ndiaye fan nga dëkkee. man maa ngi dëkk Géejawaay Canada. extension Canada extension Canada en face Réveil. yàlla yaay parce que yéen yi mel ni yéen. réew mi dañ leen a mhm. nga ñaa dugg ci gaal yi dem. mais ngelawaay bu ko defee. amul benn problème. gëstu rek te xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg mais dëkk bu métti rek. dëkk bu métti rek. yàlla baax na sama réalisateur ñun lii la ñu am mooy kàddu askan bi li leen neex ak li leen naqari ñu koy wax yàlla nañu yàlla jàppale ñu ngi fii nga xamante ni ci géej gi lañ nekk ba léegi parce que bu ngeen xoolee depuis sànq ba tey jii da nga koy siiful tey ji ñu nekk ci kàddu askan bi li leen neex ak leen naqari kilifa gi maa ngi lay siyaar waaw ñu ngi lay bëggee bàyyi nga am a baax waaw ñu ngi sant bu baax a baax tur bi naka la euh, Saayoro Mbengue li leen neex ak la naqari ci réew waaw dund gu métti gi rek ceeb bi diwlin bi tey soble la te xam nga euh, jeunesse bi nangu nañ liggéey bëgg nañ liggéey mais dund bi dafa cher te te état bi war a jàppale jeunesse bi jeunesse bi ñàkk ñu jom de ak ñoo bëgg liggéey mais état bi bu leen jàppale rek dañuy dem tey saako soble bu demee ba cinquante mille métti na. saako lan saako soble. saako soble bu doon jar cinq mille xaw ma six mille léegi moo jar ñaar métti na cinquante mille kilo mille franc mais métti na tamal yoruma kenn ku borom kër yi ay borom kër la ñu. te lépp lu yokk ñun suñu dépense day yokk bu buñ ko amul lu muy demee xam nga day metti te góor moomul toog xam nga góor gu am jom moomul toog faaw mu dem uti mais bu lépp yokkoon nu muy demee xam nga Macky Sall na jàppale xam nga na gestu askan wi. mais euh, tey jii lépp li nga ne tey seetlu tey jii ci réew mi tey nga jàpp ne tey jii est-ce que Macky Sall xam na ci dara. waaw non moom xam nga tey bu la joxee réew ak lu mun ti xew war ngaa mun a xool ndax loolu moo tax ñu teg la fi. askan wi nelawuñu nelawuñu de ñu ngi seen bët di xool comme yow waroon nelaw yow lu xew ci dëkk bi war nga koo xam bu suukar yokkee war ngaa xam bu soble yokkee war ngaa xam bu soble yokkee war ngaa xam. ay jamono sama maam dafa seen wax ne Abdou Diouf bi mu wàccee ci la doog a xam mbuusu meew ndekete juróomi dërëm lay jar est-ce que nekkul loolu nar a dal Macky Sall. waaw mais xam nga Macky man ñu ko wër tamit am nañ ci part de responsable ñu ñu ko wër ñu nekkat Macky am nañ ci part responsable bu mag. ndax tamit bu la joxee benn bërëb ne lii yaa ko géré suukar si meew si ndax Macky Sall bu bitig bu ne mënu faa dem xam nga mais ñi nga xam ne ñoom lañ jox poste boobu ñoo war a taxaw wax xamal Macky Sall ne ko lii nii la demee lii yokk na lii yokk na Macky Sall ñoom ñu mën a toog seen biir waxtaan mais tey bu loolu lépp amul mais affaire bi day pëcc ay pëcc xóor rek lay doon askan wi ñoo koy yëg ñooy metti te askan wi tamit xam nga ñoo fi nekkal Macky Sall kon Macky Sall na fi nekkal askan wi waaw. dernier kàddu waa waaw moom ba tey dund gi dund gi cher gi rek na ci Macky Sall nañu Macky Sall jàppale rek jeunesse bi bëgg nañoo liggéey jeunesse bëgg nañoo liggéey de mais dañoo xamul fu ñu jëm gis ñu ku leen ku leen jàppale te réew mi dafa tas xam nga ne tey fi mu toll nii ku yor ndey mat baayam est-ce que nga dund gi cher te mënoo toog nekk borom jom nekk borom xam nga ngor mais foo jëm dund bi cher nii xam nga nañ gars yi jàppale rek xam nga waaw loolu donc di ñaan yàlla jàmm nag ci réew mi fon nga dëkkee. man maa ngi dëkk Géejawaay. Géejawaay ci fan na leen yàlla jàppale. amiin yaa rabbal yal na leen yàlla may a ko dégg lépp lépp ci biir kàddu askan bi rek ku ci nekk li la neex ak li la naqari nga mën na ne ah réew mi kat gis naa sam dëgg la parce que kàddu askan bi la ñoom ñoo ko moom tey am na ko xam ne danaan dëkk bi métti na ci moom dëgg la parce que yaa suñu borom mooy maye te yaa suñu borom buy maye ba muy maye tolloowul parce que boo xoolee juróomi baaraam yi bu ci nekk tolloowut ak sa comme maanaam àdduna bi ñi nga xamante ni am nañu doole nañ jàppale ñi amul doole ñi nga xamante ni yàlla su borom dimbali na may na leen teraanga parce que tey yow fa nga dëkk tey boo xoolee boo doxee ñaari kenn ñetti kër xam nga ne kër gii nii dëgg rek su neexee yàlla dimbali leen yelloon nañ ko comme maanaam waxuñu la nag boo koy def nga bàyyi ba ñëpp toog nga gàddu sa saaku ceeb yàggal yàggal fa dem fa ñu xam ne kat yaa ngi fay dem sutura dafa am ma yaakaar naa nit ki koy jàppale mën nga bàyyi ba xaaju guddi bala kenn yëgul nga woo sab doom nga ne ko jàppale ma lii kat ñu ànd dem wala ilaa yow na koy dimbalee yow kese boo fa mënee dem nga fëgg diw ba diw ju nga ne ko lii maa ngi ko dimbalee te yàlla rek yàlla jàppale yàlla nañu yàlla defal jàmm kilifa gi kon ñu lay jaajëfal waaye di leen a comme nga sa sedd na rek yàlla nañu yàlla gën a jàmm kon jaajëf sama réalisateur ah, ba léegi sama gars yi a ko noonu ci ngoon gi loolu lañ leen indiloon ci li nga xamante ne mooy émission kàddu askan bi depuis sànq ba tey ñu leen doon jëlee ñi nga xamante ni ñooy askan bi li leen neex ak li leen naqari ci miim réew ñii nag wax nañ jeunes yi wax nañ grand frère yi wax nañ adduna nag nii la parce que ñoom seen kaddu rek la ñu am ñun tamit foog ñu leen koy taataanal ngir di leen koy mën a jottali li leen leen indiloon kon ci kaddu askan bi di leen bëggewaat comme ba beneen yoon incha allahu rabbi ci kaddu askan bi one love Bienvenue sur Salam Vision.